Et les amis de eSport TV, merci encore le gars de la confiance renouvelée. Merci de vous des merci de vous des

lii di kàddu racisme yi nga xam ne dañu ko jëloon teg ko ci ndoddu Upamecano gannaaw bi mu defee ay erreur ci euh, victoire bi nga xam ne Manchester City am na ko ci kaw Bayern moom nag deuxième bi bi mu daal di koy maye lool nag daal yàq match bi mais ba kii nag di euh, Mbappé moo ko défendre loolu nag waruta am nañu bàyyi yooyu noonu et que ñi di waa UEFA war nañu jël décision nag bu yemb kii nag di Galtier wax naa ne ko actuellement ab l'enquête tijji nañ ko du côté du Paris Saint-Germain jëm ci li nga xam nag mooy situation mais tamit Paris Saint-Germain daal daf ko bëgg a dàq mais du léegi day bàyyi ba saison bi jeex pendant ce temps le Milan AC a pris une option hein, devant le sur plutôt le Napoli bi nga xam ne kii di Osimhen dafa blessé euh, mongoog ah hein, donc euh, malheureusement mais quand même un but à zéro le Milan dóor le match retour nag dina nekk match bu décisif kii nag the Ibrahim Diaz parce que non le tout du Ibrahim Diaz mais Ibrahim Diaz non le doux le marocain d'origine donc mom lañ jox man of the match homme du match donc de la rencontre entre le Napoli et le Milan. assez mais gars comment comme on dit hein, non kenn tel bi tel mais non Jom Ancelotti <laughs> non waa ji ma ngoog Real dal tay ñoo aye quoi wa Real ñoo ay way bu wa Barça ay wa wa wa Real nangu leen tamit wa Real wa Barça Real mo ay nangu leen rek gars yi ma ngoog yéen ngeen fair play ñaar ñooñu ah donc aussi kii di Vinicius Junior mom yapp na club anglais Vinicius Junior ça yi daje club anglais man of the match mom lañ ko jox homme du match mom lañ ko joxat encore ah ba passé saison daw contre Liverpool gis ngeen mom lañ ko joxone ah donc mu joxat ko encore une fois gis ngeen donc kii di Vinicius Junior mi ne il veut rester euh, tout le long de sa carrière du côté du Real de Madrid Néna mom dal carrière am bëgg sax jeexalee Real de Madrid lo dal Vinicius Junior moko dal di wax Vinicius mi nga xam actuellement gars il est un autre niveau le brésilien qui nak aussi di Luka Modric léegi gën a màgget gën a gën a aay quoi mooy Luka Modric waa ji gis ngeen xool leen action bi nii ah, ni mu def gars yi ah, ñaari joueur u euh, Chelsea yi donc gis ngeen pas n'importe quel joueur ah pas n'importe quel joueur la Kovacic la ko def ak ki nga xam ne nag mooy donc Ngolo Kanté gars yi nag avant ngeen di wax lii nii du information bu baax bi du lii la li looy wax Sadio a greater a McDonald's register waxu ah. a xam nag lan wax version française maanaam lii boo ko gisee gars yi naan loolu lii la wax waxu ko lii maanaam gars yi dañ ñu defa y une plus une plus grande contribution derrière un registre de McDonald Maintenant, dafa ne Sadio Mané yow nga nekk si ginnaaw boutique McDonald ngay gën a am njëriñ waxu ko lool li mu ko wax na gars yi c'est autre chose buñ ko bu buñ mooy loolu quoi donc ñu ngi koy togg mais ce que je peux dire pour l' mooy que ne ñu wax noonu waxu ko ko et finalement nag ñaari joueurs yi di Sadio Kayza Magnifique Mané ak Leroy Sané nag la situation ni mu demee mooy ba lool problème boobu amee moom leen ko image yi yu Leroy Sané ci li nga xam mooy terrain bi ba ñu génnee Sadio Mané mooy fii Sadio Mané dafa wax ak moom ci biir terrain bi ba génnee aussi. ci biir vestiaire yi Sadio Mané wax ak moom Leroy Sané am kàddu bu ñagas bu mu ko wax saajo maane dóor ko ba ñuy génnee Leroy Sané dañ génne ci vestiaire bu fekkoon ne kon Sadio moo kii kon Sadio la ñu génne ci vestiaire mais Leroy Sané la ñu génne ci finalement na gars yi coow li am na gars yi gise nañ gise bi nag nu mu demee mooy que ne guddi gi même solon une source une source assez proche gars yi Leroy Sané moom moo dem ci néegu saajo maane jéggalu ko vous wu Sadio Mané également tamit jéggalu par rapport ak dóor bi et tout ñu daal di juboo waa Bayern nag ne ñoom dañuy régler affaire bi en interne bañ kenn bañ ko yëg mais xam ngeen rek fo leen dem day am ay tóob ni ko waxe yi ñoo xam mom sen lamine comme comme comme ki ah comme laalu mbépp mu ngoo gars ñoko fessel mais après tout est entré dans l'ordre rentré dans l'ordre yi ñaan ak Sadio Mané yéen yëpp ngeen ñaanal ko mu continuer ak Bayern mi gagné yenen trophée lu lañu bëgg inshallah allah rabbi gars c'était les informations que je voulais vous donner bu leen fatte bu si notification bi abonné gars lepp lu bax fi la jaa ngeen